coow li bari na wax ji bari na kilifa yu bari wala sax ña daan wax ñu bari yóbbu lañ leen vaar tey ñu seet koo xamante ni ñu nag moom yàgg na avant élection yi avant làmb yi avant coupe d'Afrique ya la daloon a wax ba léegi gàcce ngaalaam jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal moo yéen a ngi fàttaliku waxam jam waxoon ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé bañ ne làmb ji des na ay waxtu la génn joxe victoire bi ba joxe ndam li ni muy demee quatre appuis ndax yéen a ngi fàttaliku Modou Lo Boy Niang ba làmb ji desee deux jours la génn wax ni muy demee ba wax ñaari ñaari ñaari victoire yi nga xamante ni Modou Lo war waroon na koo am fële ca pikin ndax yéen a ngi fàttaliku bi Sénégal waree ñibbisi matcham ba contre Côte d'Ivoire waxam ju diis jam waxoon ndax yéen a ngi fàttaliku bés bi Bassirou Diomaye fay bi ko Ousmane Sonko joxoñee ka waxoon ni Ousmane ay Diomaye Diomaye mooy Sonko ndax yéen a ngi fàttaliku ka waxoon ni gis naa basiiru Diomaye fay ca pale ba ci atub 2024 bi boobu sax dàqoon nañu élection yi mbokkente no di jëmm jooju lañ leen indilaatal du kenn ku dul Serigne Jamil Mara dama naan la marabu international lan moo tax mooy li xewul sax li xew sax bitim réew da koy wax laataa moo am te na mu ko waxe woon bu ñu dikkee rek dafay amee noonu Serigne Jamil askan bi laa indiwaatal sa kanam gi sa jëmm ji ngir nga mën a waxtaan ak ñoom ci yorinu Bassirou Diomaye fay bi gannaaw ba kenn mënul woon a teg bët ci yow ay weer wala weer a ngi nii génnoo fenn te fu ñu la fekk yaa ngi ci biir bërëb yi sol lu weex tàll lenn du ko rax élection yi jàll ñu yaakaar ni da ngay melaat ca melokaan wa nga génnaat ak melokaan bii nga nekkee woon lu waraloon loolu ak ci li nga nekkoon lu mu doon tey ba senegal mën cee ndamu tey dinañ ci waxtaan waaye aji Sarr mi nga xamante ni daw na génn réew mi ak ñeneen ñu dul moom ñu ñu yëg ak ñu ñu yëgul ña yoroon suñu réew mi ndax dañ leen a war a tere ñu génn ak Bassirou Diomaye fay lépp dinañ ko waxtaanee balaa boobu dañ koy bàyyi moom Serigne Jamil Mara le marabu international mu nuyu mbokki internet di koy seetaan marabu bisimilah nuyu naa la. jërëjëf Mamadou Lamine. auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alxaaili fi mahkami tansilihi wa nasli min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatu lil muminin wala yashidi salimin ila xasaara ñooy nuyu ñëpp di nuyu bitim réew di nuyu waa Sénégal di ñaan suñu borom def ci réew mi jàmm di am mbégte bu baax ti jotaay ak ci lépp di xam-xam te lépp di njëriñ di am mbégte tamit ci doxalin réew mi jërëjëf. jërëjëf Jamil mbégte ak contentement la ñu am tey bi ñu jàkkaarloog sa jëmm ji ba mën laa dékkup micro nga mën a wax ak internet yi. yàgg na ñu nag yow ci Coupe d'Afrique bu njëkk ba ba ngay assurer victoire bi ñu nag yow ca Coupe du monde bi ñu nag yow ñu nag yow ba ca làmb ya waaye ñu nag yow ba ja ba Ousmane joxoñee Basirou nga nit ndam am na waaye ñu nag yow ba Basirou am ndam yàgg na waaye mosuñu laa vaar ci lan nga toog secret la. lu la mag ñi dee la lu la mag ñi sampee la lan moo tax daal Serigne Jamil ba nga dalee wax yàgg na loolu waaye mosuñoo gis sa jëmm ji ñu yóbbu ko vaar. waa jërëjëf Mouhamadou Lamine loolu yaakaar naa moom euh, doo leen ko mos ci man. Euh, ndax yàlla dafa dogal ne ci lu leer. Mhm. xam lu leer mhm. di ko wax tamit. Mhm. te du ma waxee tamit sama bakkan. lépp lu ma wax rek am na fu ma ko teg. waaw yaakaar naa li ma fi waxoon lépp te ngeen seen bët. te lépp tamit ñi may dégg te ak ma topp xam nañ li may wax tamit noonu la amee. Euh, mbirum waar damay faral di wax ne sëriñ si yi ma jàpp ne moom ñoom lañ koy def. seen xam-xam daa des. waaw ndax nit moom bu fekkee ne dem nga bay taxaw di wax la ngay wax war naa leer ci yow. bu fekkee ne leeru ci jur di wax. man foofu laa nekk du ma xam lu ma xamul ma ko wax. lu ma xam na tamu leer nañ ma wax. Mm-hmm. ndax yaakaar sa loolu ma laaj rek. muy lu leer ma koy wax. lu ma ci xamul doon xaw ma ko rëyu ma ko wax. ndax xam ak ñàkk xam moo fi nekk. Mm-hmm. Mm, yàlla bi ci seet ngay basé wu wala da ngay toog ñu lay ñu lay xibaar. waaw man damaa yor seet gu wér ndax damay faal di man du jëflante nit seetalu ma ko képp ku ñëw ci man ak ku mën a doon bëgg ma ñaanal tax ma ñaanal la ndax xam naa ba tey am na ñoo seen aaj dafa nar a faju ci man am na ñoo xam seen aaj dafa nar a faju ci man te lu ci nekk bu a faju ci man am a faju ci man loolu nag wax joo xam ne lu gàtt la waaye lu lu naqari déggal tamit mhm. ki may dégg nag bëgg ñëw ci man balaa yëkkat benn dërëm di ma ko jox wala may yëkkat di nga ñaanal faaw ma seetal ko ndax alxuraan dafa dafa dafa wax ne wa atul buyuuta min abwaabihaa mm-hmm. loolu da nga dégg sëñ bi di di ko tudd waaye lu wér la maam nit ko saa bu saa bëgg a dafa war a ci bunt buntu ñaan day seet te man damay faral di wax ne képp ko xam ne xam naa sa tur xam sa tur waaw jigéen ak sa dernière licence maanaam say at nga damay faral di wax ne mbirum seet léegi damay seetal nit sax mu jàpp ne ku dëkkal moom wax ay mbiram mm-hmm. wala mu jàpp ne sax maanaam koo xam dëgg-dëgg moo moo ko wax ay mbiram képp koo xam ne maanaam bëgg na di seetlu xam nga bëri ñoo xam ne ñeen dañuy seetluwaate dañ ñëw seetlu ma xool ci wàllum seet léegi dama lay wax dama na ba la dama ci a doon ci mhm. loo xam ne ba àdduna tukki di ko dégg feneen te wax na la ba tey limin baraana sëriñ soo xam dañ leen seetloo dañ may woo ma seetal leen wax leen ko ñu wax ko kooka kooku jàpp na ñoom la taman la wax naa ko ba tax te dama koy waxaat ndax loolu li tax ma di ko wax mooy suñ borom ma ci defal tawfeex waaw mm-hmm. ah, mm-hmm. waaye dama fi daan fekk ñaar dama fi daan fekk genn kànnaar mm-hmm. kànnaar gi réew mi xam ko ba bitim réew xam ko fu ne gp yeeg ñëpp kànnaar gi yegg na fa waaye dama gis genn ñaar tey ci kànnaar gi gis naa bu mag gis naa bu ndaw ci taabal waaw xam nga Mouhamed Lamine dama naan indi kànnaar bu ndaw indi bu mag yaakaar naa lii nii lu muy tuut tuut noonu la bëree njariñ damay faral di wax ne képp koo xam ne soxnaam la ko wan ginnaaw wala borom ko wan la ginnaaw. wala ngay nga nekk ak moom. maanaam nga yàgg cee ñaan loo ba sonn gisoo ci résultat moo xam góor gi la moo mm-hmm. ak ko ko mën a jur ak ñaar at ak loo ci a yàqal ci ay nit gisoo ko. na yàlla dimbali nga ñëw man ba pare. yaakaar naa boo ñëwee ci man àjjuma benn lay doon doo doo ñaari yoon. te damay faral di wax ne képp ku nekk bitim réew moo xam Sénégal maanaam kii nga bëgg ko tamit dëgg ci yow ndax man damaa dem ba bàyyi ko defal ñaari ñoo xam ne duñu way te damay ragal def ko loo ndax lii dafa doon loo xam ne boo ko defee daal def te la ma cee def maanaam ku ma ci xam turam ak tur waajuróomu jigéen ak la ma ci soxla nga jox ma ko bu ma ko defee balaa ma vingt quatre li nga bëgg dana saafara wu mbirum noo ku yàlla bind dama dama la ci ñëwut ndax dama kaa def defati ko loolu dama ci am tawfeex laa wax ndax li ma ciy def waxuma la sax même client même sëriñ si dañ ñu ma leen ko defal li ñu may fay nag. mais boo leen nit ak patron mën naa ne. waxuma la dama ne la nit sax bu liggéey doomu aadama bëgg koo ko jox respect gën a yokk ab salaire gën kaa bëgg gën kaa bàyyi xel moo xam entreprise nga nekk. moo xam da nga nekk ci place. moo xam da nga nekk fi bañ faa jug na la yàlla dimbali ko jot ma téléphone. ak ko mën a doon. ñetti baat la lu gàtt la nag waaye nag bu ma ko def suñu boo dimbali la. waaye nag nekkul koo bëgg de koo bëgg am da am yoon wooy jaar ba yàlla dogal yoon woowu mu nga war faa mën a jaar te muy dëgg ma defal la ko ndax yor xaalis taxul ma defal la ko bëgg am taxul nga defal ko ndimbalu yàlla moo tax ma defal la ko mm-hmm. kon ki may dégg na am ndimbalu yàlla ngir defal ko ko mm-hmm. ndax man dara dama gónni wax na la ba tàyyi ki may ñaan loo naka yàlla nattu li mu bëgg ma man ko li bëgg tamit suñu borom dogal ko fi Mm, sama diggante moom jëf laa ànd ma ma defal ko ko waaye képp ku war a suñu borom faj aajo incha allah rabbi waaye fajkatu aajo bi mm. tey mm. liñ daan ubbee émission bi moom laay moom laa nar a njëkk moom laa nar a mujjee wala sax ci digg bi laa koy indi muy fas gi fas gi nag euh, euh, dem na ba dama naan sax fas gi am na ñu bëree bëri bëri buñ ko gëmee bu ñu demee ba koy génne yaa ko fi njëkk a génne nag sëñ waaw loolu moom wax wax wax wax ko ci kaw ndax loolu ñu bëri bàkkee gis nga fas sëriñ si bëri dama gis ñu giwaay ñu bëri ci ma lañ gisee waaye taxul ñu yor fas ga secret fa secret bi joxe woo ko. nee naa la baraana sëriñ soo xam ne dañ leen di ñaanloo ci wàllum dara man lay ñëwaat li may fayee client yi laa leen fayoo ñu ma koy fay. billaahi ñooñu jàpp leen tàgg naa si bi gis tak man la. mbirum fas nee la la ma def ndax yaakaar na dan ngaa gis ne fas gu weex. moo tax dama bëgg Lamine loo loo gis ci man gis ma indi ko damay laaj lan moo tax nga indi ko. ba gi fas gi ñetti couleur la. waaw kay jeex na loolu nag mbirum rawxaan yi la. te li tax yàlla dogal lii ma indi ko hmm. li tax ma indi ko lenn dong la mooy ñi nga xam ne morbo yi nekk bitim réew. yàlla nattu leen ñu bàyyi seen soxna ginnaaw ñu leen di woo seen soxna dafa am doom ñu ko. loolu doo ko te dafa am ñoo xam dañ ma ko jàmmat. ma jug ngir doon def ci solution. képp koo xam nga ñàkk si ñàkk wóolu borom kër. comme maa doon ci ñaar rek mi ki góor ki mi ko jigéen ki ndax am na ñoo xam dañuy mooy rek

te dana la gën a bëgg dana la gën a bàyyi xel ba at nay tukki mi li nga bëgg ci day am alhamdulilah te lépp dara gën ci alxuraan ndax dama man yi gaa yi nekk dékkuma ci mm-hmm. man ndax loolu alxuraan amu ci defar amu ci yàq mm-hmm. ndax loolu alxuraan mm-hmm. faral naa fi kitaabi min sayin alxuraan bawul dara te lépp ngi ci biir te ki may dégg nag nekk bitim réew ñàkk soxnam ci yaakaar wala ñàkk ci bërum ko ci yaakaar wala sa soxna nekk fii nga jàpp ne lay moy na yàlla di mu nga woo dama ko gisul léegi laaj la ko nga ni ma mi ngi ci nga ni nga ni ma naa bàyyi noonu ma incité nga ne ma mi ngi ci biir te dama koo gisul boobu ba léegi nga génne ko muy Aliou Xànjar gi lu xew. Aliou Xànjar dafa am borom instant bi ndax saa boo gisul rek am na ku ma koy liggéeyal. dafa nekk di liggéey jamono yow nii mi ngi ci taal te bu tàngee ba tàng la ma cay def la Aliou di séddal kooku la mu bëgg saafara damay faral nag képp ki nga xam ne maanaam nit da ko yoreel bor xam naa da nga ci ñëw. waaw ndax alxam da kaa tudd. waaw mu yaay yoo la si ne amul isaata daa yéen tum bi day ni ila ajil musamman. Hmm. aaya bi gudd la ci alxuraan. waaye suñu borom ci wax nag képp ku daanante ni ba ci àpp ba jot la ngeen wax ne def ko te am na ñoo xam dañuy jaay nit doole ngir yor naa alal lànk bañ kaa def li tax ma gën ci ma ki ma koy liggéeyal nii. Euh, damaa woo na ma dafa am ku mu gis ci campagne yi. mu yàqub xaalis ci campagne yi te la mu koy yàqee waroon na kafe ndax da ko bor. mu wax ma ko ma ne ko bu ko leeree ne yor na ko. ci kàttu ni alxuraan balaa ma ñett fa da nga ji ngir fay bor. dama ne la Aliou Diop mi ngi ci taal ñu wax yow nii wallaahi laasim. te kam ngir kay defal laa wax. Euh, maanaam daa am ko yore campagne daa am ko yore bor nekk ci campagne <laughs> laa bëgg wax te mu mu gis ko mu yëg xaalis bi def ko ci campagne yi te mu yor ko lànk bu ñu ko fay te kooku doomu tànk la te bokk na ci élection yi bokk na ci ñu ñu na la ko mu lànk bañ la kaa ci kàttanu yàlla ci kàttan daan la ko fay insha allah rabbi alal la wala terrain la wala suuf lu lum doon lu tudd ndax yëfi jàmbur la sutura la waaye nag ki ma ki ma ko wax ma ko wax def na ko man na la ma ko wax danaa ko def te la ma ko wax danaa ko def dina ko gis bu soobee yàlla alhamdulilah insha allah rabbi ndax képp koo xam ne dañ laa yore bor mm-hmm. ki la koy ak ku mën a doon ak ku mën a jur ak fu mu mën a dëkk ne du la ko fay kooku wax dëgg boo ñëwee ci man waaye nag dama koy xool ba leer na yor na ko bu eh, eh. ma ko dana la ko fay bu ko bu ko yorul nag dama koy la njëriñ te dama lor doomu aadama ki may dégg ne a mm-hmm. mu ngi doon ba téléphone billaahi dana la ko ko yoree mais mais dañ ni ma li nga njëkk a mën ci ñaan yàlla mooy wàllum néew kàttan moom nga njëkk a mën ci wàllum ñaan yàlla naa la bitel bii lu ma am ci kaw suuf rek ci la bokk bitelu kàttan bii ndax yàlla ma cee dem nattu man dama ci am tawféex ba tey ñi am na sëriñ soo gis ñu koy joxe man maa leen ko jox mm-hmm. waaw waaye nag bokkut ak bitéel yi gaa yi joxe bitéel bu wér la ndax lii ci alxuraan lañ ko liggéeyee du ay sunguf du ay reen du ay garabi tubaab yi déedéet wa yasudukum xuwatan ila xuwatikum ak in na lillahi jamian am na yéen yu ñu koy yu ñu koy booleel te lépp gi dara gën ci alxuraan seeg ko ba mu set wicc ba nit sañ kaa jëfandikoo ndax nit lépp war naa leer soog kaa jox waaye nag képp koo xam yaa ngi may nga nekk bitim réew nga nekk Amérique nekk France nekk Italie wala nga nekk Espagne wala nga nekk Sénégal ak foo mën nekk rek ba ci Allemagne sax sa awra dellu wala ngay sëy gaaw a daanu wala yëgoo ban neexu sëy wala yow sa jëm bopp da yàgg ñaan loo ci wàllum kattan da ngay la yàlla dimbali nga am bijël bi oh. wallahi wallahi boo ko naanee fi nga ko naanee fi nga résultat te wala neex boo koy naan ma nga dem woo téléphone nga jël ko ba pare balaa une minute da ma waral la am naa ko te boo ko naanee balaa bi teel bi jëm lu ne mën kaa bàyyi xel ne am na ñoo xam dañuy jël butéelu kattan jëfandikoo ko buñ pare butéel bi jeex faaw dañuy bëgg soxla butéel te loolu du loolu du garab garab dëgg-dëgg nit ki bu ko jëfandikoo mën naa ko bañ a jëlaat man loolu laa yor mhm. moo tax nag ni nga ko gis muy tuut tuut tuut nekkul yomb mhm. bëgg ka am tamit taxul nga am ko yor xaye taxul nga am ko mhm. ndimbal yàlla moo tax nga am ko ki may dégg na bëgg am na jaar ci yoon wi ndax damay faral di wax ne man ku yàlla ndutta dimbali sa aaji faju yàlla boo sa aaji faju yàlla nga ma woo te ku ma sa aaji faju te damay wax ne nopp bii aaji ju benn du ñaar ki may wax aajo bu ñëwee aajo bi ma dama koy fecc balaa ñuy wax beneen aajo laay wax la may waxaat bokkut bi ma waxoon. macha allah barke alxuraan. Mm-hmm. mais dañu xëy ne Adji di génn réew mi. mais mm-hmm. nga mm-hmm. te dossier mu nag faaw gis nga ni dossier yi nga xamante ni tëjoon nañu ko lu baree baree bari yëkkati woon na fi coow dossier ñii dem na ñii wuy dana tribunal ñu jàpp ko ci yii dem na ba ay bakkan rot ci dossier yoon est-ce que yoon la ñu neenal ko waaw loolu moom du ma ci wax ndax ñi ngànk réew mi te war ko te xam ko waaw nañ leen bàyyi rek gis naa la daw soreetut la la jumaa yi ci kàttu ni la ko mbaaxam yàlla na ko yàlla àggale lépp lay jot ci réew mi mm-hmm. eh, nañ bàyyi discours mbaax lan lan lan la nar a moom maanaam jomaay nañ ko wóolu rek ba ko moom koo ko mu dama sama xel daal ci moom ah. ndax dama njëkk a taxaw fii dana jumaay mooy sonko sonko mooy jumaay baat boobu koo gis mu dégg ko rek maanaam koo gis mu koy wax ci man la ko xam nga man dama dut waxamtu te lu ma wax man day am barke loolu day dem ba law wax naa ko waxati ko mm-hmm. te man dama comme ni gars yi def topp wax naan maa ko waxoon waaye baat boobu ñëkk njëkk wax. ci la bokk mu ko yëkkatu wax sax. ndax man yaakaar naa ñu baari dañ may topp ci wàllu li may wax. Hmm. ndax lépp lu may wax rek ëllëg da gis njëriñ la. te jumaa dama am ci yaakaar ndax lépp lu naqari woon dana neex ci kanam. wallahi naa si te man nag dama koy ñaanal rek. Hmm. yoon yu mu suñ suñu borom àggale ko. moom Diomaye te yàlla xam na ko rafet lépp rafet naa ci njott. waaye nag na ànd ak ki nga xam ne mooy Sonko. Hmm. ba bëggee am li mu bëgg. ndax gannaaw yàlla léppam ci loxoom la jaaree gannaaw yàlla mais gis nga ni euh, dossier yooyu noonu daal nañ ko bàyyi ak Jomaay est-ce que Jomaay mu xëccoon leen woowaat leen ndax milliards yi nga xamante ni jël nañ ko ci réew mi daa bari de. waaw lu ma euh, maanaam euh, tappale dafa war a jeex. ak jël àll jàmm dafa war a jeex. ak jël loo moomu dafa war a jeex. te lépp yàpp naa daañu ko réglé ci kanam. te damay faral di wax ne maanaam toll ku yàlla bind kuy noyyi juróomi dërëm sax boo ko lekkee te mu wóor ñoo ne lii dañ ko war a lijjanti. ak comment doon rawatina ay milliards. loolu nag nee naa loolu dama ci sori waaye nag ki nga xam ne mooy jiita réew mi te mooy euh, alaaji Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. euh, bu yàlla dogalee mu discours nañ ko ci déglu la mu wax rek nañ topp loola mm-hmm. te yaakaar lépp lu mu wax tamit loolu la ñu war a def ndax loolu tamit njariñ la ndax ñoom defuñu te ay borom yi xam-xam lañ mm-hmm. te yàlla dogal na ñoom dañoo sonn ba am li ñu am te damay faral woon nag képp ko xam da ngaa sonn ba am li nga am kooku loolu am nga rafet nañ ci ñott mais ba ba Sonko jiitalee Jomaay dañoo mës a toog nga déchiffrer turu Jomaay génn ci xam-xam bu doy waar waxtaanee ko waxtaanee ko am na ñoo xamante ne seetaan jotu ñoo seetaan vidéo mais est-ce que mën nga ñoo fàttali ndax Jomaay mën na biddéewam wala ci wàllum mystique wala ci wàllum xam-xam ak bopp est-ce que boppam attan na réew mi réew mu toni Sénégal. ah wow wallaahi gis nga suñu borom. waaw lépp lu doon am na xam def ko ndax bu ko yaakaar damaa jàpp ne bu ko attuntoon wala wóoru ko a def suñu borom ko jiital. waaw tamit bu jiitalee doomu aadama rek li tax mu jiital am na tax mu ko man loolu nag ci xam-xamu ci côté boobu laa ko teg xam ci diggante sama borom. kon nag yàlla lépp lu mu def am na lu tax mu def ko ndax suñu boobu def dara ci ak nen. na nag fa laa ci wax ji du gudd ndax dara du ma jégee suñu boobu teg ko rek mënu fa mënu fa tegaat bi leneen. waaye sëñ ngi nii bët mënut a tege ci yow nga nekk ci course nekk ci liggéey nekk ci kenn xamul lu ko lu tax. waaw nekkoon ci élection yi rek di jàppale El Hadj Bassirou Faye Diomaye ndax li tax ma di ko jàppale mooy dama amoon ci moom yaakaar. te nee naa la euh, xam naa fukki sëriñ soo xam ne. kenn xamu leen te kenn joxu leen dara te doon na jàppale Diomaye Faye di ko ñaanal mboolem lu ànd lu ànd Ousmane Sonko barke alxuraan di ko di ko ñaanal te ñooñu ba ni mu wax yow kenn xamu leen te mm. soxluñu àlli kenn mm. képp xam ne dama nga jàppal nga beneen kan kan damaa ne sa poos a waaw mën naa ko wax waaye nag sëriñ si ma gis tamit damay dëgg ci ñoom te ñooñu kenn xamu leen laa wax te man xam naa leen man yàlla dogal na sax ñoom sax duñ feeñ ci yu mel nii te xam naa leen dañuy jàppale di leen ñaanal te yàlla tax te ba yàlla dogalee résultat génn ñu di ko ñaan lañ ci pare la ca nag dañuy toog ñaanal ko loolu jik ko wallaahi asim soxlaatuñ dara ndax ñoom li tax ñu def loolu jëfuñu ko ngir jumaa dañ ko def ngir Sénégal ngir Sénégal ndax Sénégal boo ci xasee bokk bokk nga ci. lañ tee war def mooy ñaanal Sénégal am jàmm. Mhm. kon nag ñun foofu lañ a gisoon ndax nee léegi man lépp lu ñuy def duñ ko def ci ak neen. ndax buñ leera ne lii lu baax la te suñu borom war nañu lii lu war a am la dañ ko dañ ci jàpp. Mhm. ndax lu suñu borom ànd rek dañ ciy ànd ñun. te loolu loolay dëgg ci ñun. Mhm. moo tax li ñuy des li des mooy ñaanal ko mu jikku te yan boo woyof ci moom tollu te lañuy séntu ci moom ñu gis ko ci moom te yaakaar bay tas ci moom incha allah te yaakaar naa yaakaar du tas ndax ñi ko seq dañoo am ci ñoom yaakaar te incha allah ba leen doon commencé dañuy ànd ak ñoom di ñaanal te jàmm rek la ñu am incha allah la mooy di sant yàlla di am mbégte ci eh, jataay am solo bii lépp xam-xam la lépp njëriñ la mm-hmm. Eh, di tuub di jégalu ci ñàkk gëj a gise gi lépp lépp nekkoon ci liggéey bi rek ba gannaaw dem maa yéen a ma woo dama mm-hmm. gannaaw lépp jaan dama bëgg ñëw ma nangul leen ko mm-hmm. boo gisee li sal loo gisee li ma sol nii rek xam mbégte laa àndal te sant nañ baax baax di ñaan yàlla nag képp ku aaju ndur faju mm-hmm. maa ngi lay ñaan yàlla boom woo te maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne aajoom ah, dafa ndara faju yéen nang ma woo te jàpp na ne ku ma woo ba jot ma mm-hmm. saa jën faju ah. ki ma woo jot ma dama insisté ba kaw di ma jot loolu ñu bëri ñu ma koy bàkkee na damaa naqa jot damaa nekk ci liggéey ndax man yitte doomu aadama mm-hmm. boo xasee dugg samay nopp yitte jooju fekk aaju faju du ma bàyyi mm-hmm. loolu ma yàlla bindee di tuub di jégul am mbégte ba waaleykum salaam wa rahmatullahi taala dafa bokk mi lim leen jaral te nee na jàmmi réew looloo tax ngeen gisoon gëj génn bi ngeen gisoon yenn melokaan yi boo ko bettoon sax këram xëy na di nga gën a jaam di nga gën a waaru ci ni nga xamante ne noonu la songe woon combat bi daawul génn daawul wax daawul mel nenn ni lenn rek moo ko waraloon mooy nee na candidature Diomaye Faye bi faw ñu insister ci ngir mu jàll te bu xasee ba jàll jàppal ko tànk ngir mu doon président wareef lay doon ci ñun ñi nga xamante ni ñoo am baatin di xool ki gën ci réew mi ñu jàppale ko ñu jaajëfal mbokki internet Allô Sénégal gi ndax ay soppe dong la bëri moom mi soppe yi ñoo doon laaj ne faw sëñ bi daal di génn rek amal waxtaan ak ñoom même bu dee 5 minutes la bëgg nañ jaajëfal nañu leen jaajëfal mbokki internet Allô Sénégal yi jox leen dig daje ëllëg ci seen yeneen émission jërë ngeen jëf